Tay nak ñun kuréelu les lingères de l'émergence wa ñag ñu ngi fi wa Pekin wa Dakar euh, wa fu nek ñu ñew tay jëmmal suñu kuréel fep fu mu nek ci Sénégal rek li nak wane ni meññe fi nek nek suñu réew mom lañuy soppali euh, pour mën promouvoir la consommation locale mën a xeex ndool ak xiif waaye tamit mën a contribuer ci suñu développement économique gu réew ndax ñu ngi koy jël fii am ci autorisation de consommation di ko jaay ci rayon yi waaye di ko yóbbu tam di ci am ay commande fi ba excès luy euh, agroalimentaire rawatina filière mille amna maïs jus amna am wax deug yalla amna goût yëpp aussi coco yi ñuy transformer am nañu yeneen yoo lu ay euh, euh, dégé peut-être bobu dafa jeex sax ñu ngi liggéey tamit ci beurre de karité indi wuñ ko sax ci ci ci foire bi mais lépp lo xam ni nit un koy consommé mu koy may wér-gu-yaram ak ah wax dëgg yàlla dootuñu ko djéggani ñu ngi koy jëlé fi diko ko soppar ñi ànd ak suñu jigéen nga xamné légui ay expert lañ ci def nañ formation yépp ñu xamné capacitation de la femme amna na da te dinañu indi promotion mais yamuñu ci ndax lé ay œuvre d'art œuvre d'art la suñu benen rak lañuy euh encadrer mu diko def ci ay collier ci ay bubu ci ay dal ay sac défar ay design yu rafet rafet mi ngi nii euh, kon dal ñu ngi l'émergence du Sénégal